am na récemment bi ñuy wax affaire euh, coronavirus bi aide yi ñuy def ak yëpp maire de Dakar maire euh, Médina du moins Bamba Fall man maa ko seetaan en personne mu toog ci télévision TFM ci af ci koor gi ne damay jàppale artiste Médina tel que Pape Birahim daal di lim bu waxoon dafay dafay yem ci artiste Medina rek yem fa point mën nañ comprendre mais dafa ni tel que Pape Birahim El Hadj Keita Baye Demba léegi. Pape dama lay dog foofu est-ce que nekkul ñoom lu ñu nekk ay artistes jeunes moo tax ma choisir leen bëgg leen a bëgg leen dimbali baay fii ñi nga xamante ne yéen a jiitu xale yi. waaw mais d'accord mais chez nous on a on a am na ay doom yu fi nekk ay xale lañu yu nekk ci métier bi sunu doom yi. son papa am na yeneen doom yoo xam ne ay tu ay xale yu tuuti lañu doon maaseeg suñuy doom ñun donc mais du Ndiaye Rose sax kenn mënu tudd affaire Médina bàyyi ko parce que conseiller la woon ci maire bi. ci biir maire Médina. la donc waruñu def dara beddi ko ba pare bi mu liimee ñooñu bi muy def aide yi dafa jël vingt saako ceeb jox ko waa 55 ay sources yi claires laay wax duma wax ay dégg naa quoi parce que suma jabar V5 moo ko jur. Mhm. dama am ay ay informations yu claires. Mhm. jox leen ko waa 55 jox leen suukar jox leen kii jox ko artistes yi nekk Medina yëpp bàyyi waa Katu Ndiaye Rose ñun nag soxlawuñu ay ceebam ak diwlinam ñu ñoo ko gën a nekk Medina man leer na ma ni sama papa li mu def Medina papaam def ko Medina je avec le maire de de la Bamba Fall en personne moom moo def loolu moom laay waxal te médina aussi ñun dañ fa nekk bokk biir Medina xama nit ñu baax ñi. am na yeneen booy Médina yu nekk foofu yu mën a nekk maire c'est boo xamul xamuloo parce que ñun waa Kër Doundiaye Rose ay gagneur lañu donc moom bu ñu beddee def na erreur mais nag annonce bi ñuy def may def nii bu mu tax mu indi ceeb wala diwlin soxlawuñu ceebam soxlawuñu diwlinam pourtant Cheikh Ba mu ngi Médina di def ay action yu rafet yu nice sax te boolewu si coow. Cheikh Ba dafay ne ay ceeb fi. indiwu fi ceeb mais mu ngi def ay action yu rafet yoo xam ni ñu ngi koy dégg mu rafetlu ko lool sax rafetlu ko lool donc ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi nelaw biir Médina ñun pa à partir d'aujourd'hui dañ leen yee dañ leen yee ñu jóg bokk ci mairie bi parce que ñun ñooy Médina moom na bu foo foogee nii parce que dama pour man affaire complexe la bu tuddee Pape Birahim tudd El Hadj Keita tudd ñoon bay Demba ak ñooñu xale bon ay question xale famille bii la tudd famille cinq cinq la tudd ñun c'est la famille dut Ndiaye Rose te ñun dañu fier ci lu ñu nekk soxlawuñu ceebam sa pap daf ñu jàngal liggéey il nous a appris comment travailler ok donc soxlawuñu ceeb soxlawuñu diwlin lii moo wax ne ba mu tax muy indi ceeb wala muy ni diwlin wala muy ni suukar soxlawuñu ko na ko téye mais na fexe ba xam ni mënuñu génne Médina te ñun di dinañ ko won ni ñu ñooy Médina. personnellement yii nay Médina tonton El wax nga lu am solo mais su weesoo ceeb bi dégg nañ tamit ñu ne am na xaas bu ñu fi séddale. xam nga duma lim tuut mais dégg naa ñu ne am na xaalis bu ñu fi séddale mais xanaa ko jotul ceeb war ngaa mën a jot xaalis nag. waaw mais li ma la wax kay ku jotul ceeb kay nooy jotee ci xaalis waxul sax ba tudduñu pour moom ñun existé tuñu mais léegi suñu existence dañ ko dañ ko koy wan Cheikh ba mu ngi fi di def lu baax dañ koy jàppale ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk biir Médina parce que ñun Médina ri 1 ba Gueule Tapée xamante nañ suñu biir ñun ñëpp. xaalisam soxlawuñu ko na ko téye ay ceebam soxlawuñu ko na ko téye comme bokk boolewuñu ci artiste su Médina ñu dinoon ko wan ni ko ñu ñooy Médina c'est clair Yo, yo.